li cadre bi dañ gouvernement bi euh, dafa joxul cadre bi depuis atu ngi déposé préavis de grève le 31 décembre 2018 ci table gouvernement bi pour ñu mëna waxtaan ci jafé jafé yi nga xamanteni mom lañuy dund noté discrimination bi secteur santé ta amu fa corps de métier représenté wul santé santé c'est tout un ensemble ñu jël ben corps de métier jox ko lépp soxla ñi ci dess ñu ne leen xaar leen xaar bobu dafa doy benen bi ñu ne ci biir secteur bi nga bëgg am ñaari corps de métier ñaari infirmier d'état loolu mënul nek ñu ni légui dañ bëgg ñëlé na ngeen def concours loolu dañ ñu defuñu examen defuñu concours état bi décidé ni dama relever niveau infirmier d'état bi ci bac moy jox les moyens pour ñëpp nek ci même corps bi te jurisprudence amna fi ndax amna corps de métier yu nek en extension ñu dugal leen ci yeneen corps te trala bobu dugguñ ci nous avons créé un corps d'accueil pour les techniciens supérieurs mais après amul un décret pour jël modalité yi fekk len nous moy un plan de carrière paramédicaux yi limité nañ ko dañ ñu loolu duñu ko d'accord té suñu responsabilité nous bëgg a jël population bi à témoin nous ñu tok ba mois de décembre tax ñu ngi déposé suñu préavis le 31 décembre ba tay kenn wuñu yémuñ ci loolu ñu déposé ay courrier de relance le 22 euh, juillet 2019 nous déposons le ministère de la santé avec accusé de réception numéro 8172. 72 le 13 août nous déposons le bureau ministre de la santé accusé par le secrétaire particulier du ministre de la santé faale wuñ le lolo défi bu lancé défi nous dinañ ko tontu ci responsabilité nous avons nañ 72 décréter heures de grève Nous nañu décrété ni décréter heures de grève wala avons nañu tepp ni grève illimitée Nous defuñu décidé nañu décréter grève de 24 heures le 31 décembre 2019. mille grève d'avertissement. grève d'avertissement le 31 décembre sur l'ensemble du territoire national bu dinañ xam ndax am na représentativité ci secteur bi wala CUS amul représentativité ci secteur bi te ñuy fàttali ne nag lii nii du suñu bëgg-bëgg état mooñ ci poussé ndax dañ ni boo déposé sa préavis bu bàyyi jàllee weer war nañ la woo waxtaan ñun déposé nañ ko am na at recruter ñoo xamante ni duñ ay infirmier duñ ay sage-femme duñ ay technicien supérieur ay agent la yoo xamante ni système bi soxlawuñu leen ko parce que ñooñu lañ jàpp ni ñooy seen ay éléments yu ñu mën a jël dañu loolu d'accorduñ te dañu yàgg xeex système démocratique pour la gestion des ressources humaines mooy bu nekkee li ngay def dafa leer dañ koy teg ci table ñëpp toog ci tour table te nous sommes assez responsables dañu système de santé lu metti metti metti urgence yi dañ koy gérer kooku moom kenn waxaaliwu ko parce que amna yo xamanteni lu grève même grève générale bu amone amna urgence yo xamanteni il faut di nga ko gérer loolu lañ wax ni dañ ko def mais lepp luy programme réglé lepp luy lo xamanteni mën na xaar bu boba dina xaar le 31 décembre. mais xolé système bi jël mobiliser toute une équipe mobiliser tout un système dëgg dem ci dans les grandes villes pour di def ay démonstration ni loolu wax dëgg yalla japp nañ ni du suñu objectif da japp nañ ni loolu du mooy li ñi xaar ci période santé pour fajj askan